maa leen di nuyu di leen siyaar bi xanaa sant rek sant maam Cheikh Anta bi ñu boole ci yoonu sëñ Touba di ko sant baax ci bokk gi ci bokk ndax lu toll ne Daaru Salaam ku ko xamuti dégg ko bis bi sëñ Touba ñibbisee ci géej gi la wàccoon kon nag bis moom yaakaar naa bu ko gën a

commune Galas ci barkeb maam Cheikh Anta borom bis bi daal ñi ngi ñaan lépp lu fi def ay rek sëñ Tuubaa seral ko ak maam Cheikh Anta dam seedu gu ñu fekkee ko ayaat ci màggal di ko màggal rek loolu daal la ñaan dafay faax rek di wax ne góor baax na jigéen baax na lan mooy seen taxawaay yéen soxna yi ci seen maanaam bu dee sant maam si xant ñu ne bëgg ci xéewal yi mu defal ñu wér a gudd fan ak loolu ko di sante ndax dañ ne góor baax na jigéen baax ñun jigéen ñi it maanaam toujours daal dañuy yaatal ah. di boo gisee ñuy def dañoo bëgg yaatal di gën di iya, sant daal macha allah iya, ndax kontaante iya, gi ñu yàlla boole ban bokk ci da ban koo sant ñu koy sant suñu ñaari waajur bu baax loolu daal bu soññee yoonu sëñ Tuubaa ak yoonu maam si xanta lu nam rek koy def. ci say ak lu waaye ay taalibe waaye ay ñoo xam ne nii tamit euh, ñu ngi ci wàllu yëngu ci wàllu àdduna ndax euh, sa diggante ak ñoom man man ngeen ci dellu si. waaw loolu moom ma ci laajee dinaa sawar ma tàmbalee soxna ma sa Sidi mi di sama rak di sama dooy baay baayam di sama sëriñ ñu bokk sëñ Touba yàlla boole ma ci kër Seex Abdou Lahat mu ñëw fi teew fi ak sama mbokk yi yëpp samay rak samay xarit soxna moomi jaxate ñoom soxna ñoom ñëpp ñu ngi ni toog a dëgg ñoom ñëpp daal sant Maam Seex leen fii nii dañuy ñaan rek di ko gën a mën daal waaw ah xanaa di leen sant nag yéen tamit ci lu baax lii ngeen di def ñëw di ñëw di siyaare ci màggal gi di len ñaanal ngeen gën ko man dal lu ngeen fi sakku rek ci Daaru Salaam bisub dëkkum ñaanukaay la dal lepp lu ngeen fi sakku rek yar na len ko señ bi defal wa lol daal lañuy ñaan soxna asu baake wa way ñi ngi nuyu ñep di len ziar di nuyu suñu xarit suñu wëlëre moom tamit ci euh, Daaru ci magaluk mam Cheikh Anta borom deureum ak ngeureum Euh, di am mbégte bu baax a baax itam nag ci li nga xam ni moom mooy liggéey bi nga xam ni maam Cheikh Anta liggéeyal na ko Cheikhul Khadim ak ngërëm li nga xam ne am na ko ci moom ci bis bi waaye dellusi gi mu si waat itam ci bi mu jógee ci tukki bi fekk si Serigne Touba Serigne Touba fekk si maam Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm euh, ndigal li nag biñ ko amee ci xalif général de Mouride mu jaar ci sëriñ abo Mohamed muy xalifa daaru sa euh, sëriñ Modou Rokhaya muy sëriñ Cheikh Anta ak mboolem jabootu maam Cheikh Anta Mbacke gi yëpp soxna Astou bis bii day bis boo xam ni seen bisu maam la ñu di ko màggal waaye ñoom ak mboolem jullit yi yëpp ñoo ko bokk ñoo taalibe bi yëpp ñoo ko bokk waaye soxna Astou it euh, nekk ci sëtu maam Cheikh Anta yi nga xam ni euh, ñu royuwaay la ci woyefam royuwaay la ci yaatalam waaye royuwaay la itam ci ak yëgam loolu moo tax ba bis bi bi ko wootee mu woon ak wëllëreem yi nga xam ni dañoo doon ay xaritam te yàlla boole leen ak ñoom te ñu bokk ak ñoom li nga xam ne moom mooy dëkk bi ñenn ñi de ay bokkam gis nga ko nii soxna maam Assa Mbacke moom sëñ Sidi moom sëñ Abdou Lahad di bokk ak moom lu bari keur seigne Abdou euh so boo fa eh, tuddé soxna eh, Assu tuddu ko seigne Abdou sank rek mi mu koy wax seigne mamour sikap féetal gi ko eh, gi mu féete woon ak seigne Abdou waye itam xam ngeen ni waye xam ngeen ni itam euh soxna euh monsieur le maire Abdou Lahad Ka dafa bok mom soxna Assu 100 bi soxna Ami bakki Pouf di me jité ko waaye monsieur le maire it digganteem ak soxna Astu moo taxit bis bi kenn la ci moom ci taxawaayam ak jàpp gim ci jàpp ñu koy sant bu baax di ko gërëm. waaye tamit boo xoolee ñii toog di nga xam ni soxna Astu euh, maanaam euh, amlante na ak ñëpp ndax Adama Dieng moo toog nii bokk ci ñi nga xam ni wax sa xalaat yi waaye bokk ci pôle communication au niveau cabinet du maire mi ngi fegoo ak Cheikh aw Balla fay mu nekk conseil municipal bokk ci 100 pour cent bi ñoom tamit waaye sëñ Modou ñu gën koo xam ne Moustapha Lo nekk responsable politique APR ci ginnaaw Serigne Cheikh Abdou Bali Issa Sarr waaye xam nga laat luum ak Modou Xuma doon ñenn ci ñoom jàppale ko lool ci organisation bi waaye tey daal boo xoolee ñii fi teew ak délégation yi ñëw ca leen di séntu di nga xam ne màggalug maamam gi boolewu ko ak dara moo taxit bi muy woote daf ni ku ma mas a lebal maa ngi lay séntu sama màggalu maam gi koo xam ne itam lebal nga ma am naa yéene ak pas-pasu fay la sa bor boobee moo tax nag mu ko daan defee Touba ci gaar bu ndaw waaye ren jii nag yokkute gi ci am muy euh, magam Serigne Bassirou mii mu bokkal sëñ Maam moor Sikaab ne ko damaa bëgg nga ñëw fi ci Daaru Salaam amale fi bés bi moo tax bi ko fi wootee nag tey mooy première édition kon boo xam ni fii ci Daaru Salaam la ko dundale ànd ko nag ak rakkam yi soxna maam Faati ak ay ñi nga xam ne ñëpp daa bokk ak ñoom sëñ maam Mor Sikaab kon noo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yal na ko yàgg a taxawee. jànkatu xasida itam gis nga leen ñoom ñëpp it ñëw nañu ànd ak ñoom bis bi bis bi nag nii lañ ko fas yéene ak i bernde ndax xam boo xoolee li ñu teg ci taabal yi xam ne méngoo na ak bis bi ndax bis bisu bernde la ndax keroog bi tu waa ñëwee fekk si maam Cheikh Anta. Mam si Anta ngi deg Sadda di wax legi lu ne def nako ba teur nit maam aska maram moom mu doon waye euh mbekté ga mu mbekté gogé da fay wéy nga xamni euh daru salam lu ñuy dugg rek lu ne amna histoire ndax bo xolé 365 jours mom moy atmi mi jébbale yi ñu mujjé a 365 millions lañ nga xamni ni kon da nga nal bis bu set wa daru salam joxe nañ am million bo xolé yitam seigne Modou Mamoun mi mamam mo ñeuk jox seigne fallu 1 million ba nopp boole ci ak almet waye daru salam yit xam nga ni fi le seigne fallu gané jamono dekk bi le seigne sëñ ñeuk sanc ci dekk bo xamni dekk bopama mom la massa sanc ci dëkkit sanc ko ba del ci wat Touba gi limi reey reey lepp Touba gi ak limu ci daj ak lim ko ñaan boromam kéro bu mu génné du gatu ci ba kéro bi ko Cheikh mohamadou Moustapha jélé ndiaré 1927 indi ko ci jumaa ji kon dëkk bi rek la génn bisub gaaw génn Sénégal génn ci mbacké bari wax ni ci yowma sabti samina asar li xidmatil mukhtari fi shahri safar waye kéro bi mu déllu sé itam ba mu ubbee kaamil ba lan wallahu walaahu ila dar salam fi rek la jawal ci fekk je Cheikh Anta jaamam ba nga xamné da waxon ni bu sëriñ bi dee dox ci ab lay moom day jël ab lexam teg ci lay bi sëriñ bi jël aw dàllam teg ci ab lexam maam maam Cheikh Anta wala mu xalangu lu sori ba lay bi dem ca yére ya mu door a bàyyi ku tedd ki mu door fa jaar loolu nag yàlla rek ko man koo bokkal bàyyi mu di sab nawle ci bu doon ciw askan bu sëñ Tuubaa doonoon ko ni nawloo waaye nga wëlbatikuwaat jaay la nga ko bokk ak moom lépp jënde ko ak taalibe loolu sëñ Tuubaa rek euh, moom la ko suñ borom jagleel waaye nag Cheikh Anta suñu borom fay na ko ndax ba mu demee fekki ko Libreville euh, fële ca Lambaréné ca May euh, ca Gabon ba mu demee dafa ànd ak sëñ Modou Lo Dagana dem seeti ko ba mu demee moo ko njëkk wax ni ko damaa bëgg nga dellu ci réew ma sëriñ bi ni ko fii suuf si daa bëgg ci man am yëg ci man ci jaamu yàlla gi ma fii jaamu yàlla boo ma sañoon seex ngeen bàyyi ma fii mu ni ko bàyyi la fii ëpp naa def ndax buñ la fi bàyyee boo fi desee lépp lu baax fii lay ne te boobaa réew ma buñ ci bëggee jariñu faaw ñu fekk si la nga xam ne maam Santa egg na ci suuf si sëriñ bi doon toog wax nañu ni mu duy ci ay saaku ngir bëgg koo wax ne ko jël naa suuf si ngir yóbbaaleel la waaye keroog bi mu ñibbisee itam nag ci waaxu Moussa Siri bi mu ne cëpp fii ci ci ci poor bi ñu ne tekk ab diir ñëpp tiit ndax xamuñu sëriñ bi ñëw na wala ñëwut xamuñu sëriñ bi ba xam nañu bëggee mu ñëwee ni ñëwee na wala déet bi ñu nee tekk ba mu yàgg commandant bi bi mu nee tëll ci escalier bi mu taxawee dañuy uwee uwee Cheikh Anta maam Cheikh Anta mu mu ñëw wuyu sëriñ bi mu ànd ak mu def fa ab diir def ya mu war a def séq koog sëñ bi yëpp keroog bi mu ne tëll ba taxaw ci euh, bato bi ci escalier bi maam Cheikh Ibrahima Fall da koo daal di jël rek daal di koy boot wàcc moom wuti la euh, wuti wuti lambinaas booba Cheikh Ibrahima foofu yëpp moo ko moom kon Daaru Salaam dëkku histoire la waaye dëkku jàmm la nag kon nag contexte bii nu toll ci réew mi ñuy ñaan jàmm ci réew mi tey bis bi mën na ko gileem tukkal la xawma luñ ko sëf waaye sëf luñ ko sëf attan na ko noo ngi ñaan yal na yàlla def jàmm ci réew mi noo ngi ñaan yal na yàlla def jàmm ci nawet bi mu doon nawetu jàmm ca murlo ko soxna Astou